nekk nii jafe-jafe yi nga xamante ne peut-être euh, ñi nekk euh, ci bitim réew euh, parfois dañ koy jànkoonteel xëy na c'est pas évident nga xëy rek tukki di nga war a am këyit papier de séjour pour ñu bañ laa refoulé yooyu yëpp noonu tey jii lan lan nga ñu mën a xamal loo xamante ne nii Modou Modou yi ñu ngi koy jànkonteel te xëy na mënuñ koo joytu fenn fu dul voilà. waaw Modou yi ñu ngi jànkonteel daanaka boo dee xool problème bi ñu gën a jànkonteel boo dee xool. problème bi leen gën a sonal bi leen gën a sonal mooy que ni bu ñu xasee ba ni cëpp fële rek ñoom këyit la ñuy njëkk a wax te boo dee xool bu ñu waxee affaire këyit il faut que aussi gouvernement bi jël si maanaam jël si ay convention ay yu paisible quoi ay convention yu neex entre sénégalek dëkk ba muy wàcc entre sénégalais dëkk ya ñuy wàcc mais bu fekkente ni tey da ngay ñëw si dëkk tey par exemple kaaw Espagne laa la mën a wax boo fa nee cëpp bu sa visa jeexee. yow illégal nga quoi yaa ki ñëw si gaal yi yéen a yem illégal ngeen donc dañ lay wax nga toog trois ans doogo am preuve pour maanaam preuve wane ni toog nga fi trois ans am preuve wane ne ni si biir trois ans yi diw moo la doon dundal xam nga diw moomu wane preuve ni moom dafa am bulletin de salaire xam nga lu ma la wax di fayeeku li nga xam ne mun na see dund moom dundaaleel la boo bu loolu jeexee nga wane ni am nga ku la bëgg defaral contrat de travail pour un an mu mun la jël gis nga ñetti jafe-jafe yooyu maanaam boo ko dee xayma yow da nga naan bu dee lii rek moo tax këyit kon man du ma am këyit léegi nga jógee foofu nga am contrat de travail tubaab bi jël la defal la këyitu un an këyitu un an boobu da nga koy cotiser li ñuy wax sécurité sociale yow en tant que immigré yow en tant que sénégalais à partir de ce moment dangay da ngay cotiser li ngay cotiser noonu mooy dundal sa këyit loolu mooy arroser sa këyit boo liggéeyul maanaam boo liggéeyul rek yow këyit bi bu liggéeyul. kayit bi bu liggéeyul rek yow pare nga si kayit bi maanaam boo ah, boo ko dee renouveler parce que ñoom fu ñu toog la ñuy toog di xam ne alpha mi jox nañ ko kayit jox nañ ko certificat de ah, jox nañ ko jox nañ ko kayit pour mu dëkk si dëkk bi di fi liggéey am na temporairement mais nekkul di liggéey léegi sénégalais li ñu jànkonteel mooy que ni loolu noonu boo ko boolee am na ñu mu yomb am na ñu mu yombul mais li ñuy gën a gis ñun li ñuy gën a gis que ni mooy que ni boo dee xool da def si dëkk 12 ans si dëkk Europe bi 12 ans. doo am kayit te duñ la may kayit jéemuñu laa lijjanti waa dëkk boobu parce que signé wuñu ay convention yu paisible yow si biir loolu ñoom nee ñu ku fa def dix ans am nga droit nationalité mais loolu gouvernement moo koy dox loolu du population bi ñoo ñëw di ko dox gouvernement moo naan sama doom kat ku fi def nangam bëgg naa ngeen may ko kayit bu ngeen ko jàppul aussi si lu jëm bu fekkente ne casier judiciaire am vierge na amul ay délit pénal xam nga parce que dafa am quoi ñoom dañoo am seen règlement am seen i loi am na yoo xam ne ay délit pénal la am na yoo xam ne ay délit administratif am na yoo xam ne ay faute administrative la am na yoo xam ne ay levée la essayant comprendre kon donc yow dina la permettre yow même boo fa nekkee fukki at juróom sax bari na cent moodu moodu boo leen jëlee quatre vingt quatre vingt moodu moodu yi seen papi euh, seen euh, seen casier judiciaire dafa vierge amuñu benn jafe mais ñun duñu gis loolu bu ñu waree renouveler suñu këyit dañuy sonn ndax lan suñu passeport bi suñu waa dëkk ñu ko jox à temps suñu quarante yi duñu ko jox à temps man mii di wax ak yow déposé naa quarante depuis février xaw ma décembre deux mille euh, deux mille dix neuf non vote lañ ma bindal si quarante bi non vote te ba léegi gisuma quarante dégguma quarante te dèjà présent man éliminé nañ ma si élection yi war a ñëw ma yow mënoo voté te man voté naa en deux mille douze voté deux mille dix neuf en deux mille waaw deux mille dix neuf élection yi mujj yi man voté naa kon donc yooyu noonu moo lay war a di maanaam ñun amuñu jàppale suñu gouvernement bi jàppale wuñu jàppale wuñu si benn côté gisuñu fu mu ñu jàppale aussi amul benn côté bu ñu jàppalee aussi kon donc loolu aussi ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax a baax a baax di wax suñu gouvernement bi li mu mën a jàppalee immigré daal mooy loolu bu dee liggéey ñun mën nañ ko bâtiment yi gën a ngand si Europe boo fa demee sénégalais yi bokk nañ si ñi ko tabax tool yi gën a fruits yi gën a baax si Europe suñu mbokk yi bokk nañ si ñi ko si ñi ko jëmbat ak si ñi ko bay nag yi gën a duuf Europe laa la wax nag yi gën a duuf Europe suñu mbokk yi bari nañ si ñi leen sàmm ñi leen xont kon donc ñun amul lu ñu mënul amul lu ñu capableul mais gouvernement bu incompétent moo nekk suñu ginnaaw war ñoo dimbali te xamul fu mu ñuy jaar ba ñu te ñun ñu muy dimbali bu ñu jógee di ko wax ne ko nii nga ñu dimbalee mu ne ay activiste lañu ay révolutionnaire lañu commencé ñoo tëj wala mu commencé ñoo dóor te ala kon tubaab bi du def noonu ay doomam bu gisee doomam di kaas benn mbir day xool nu mu def ba doom ji jot si lii te du ko lor moom du ko lor moom moom moom mi koy ut mu def ko Sénégal maanaam seen seen dëkk jëm kanam kon ñun tamit loolu la ñuy wax te loolu la ñu bëgg aussi quoi parce que képp ku nekk fee rek fii moo tax ngay def képp ku nekk fee rek fii moo tax ngay def kon nañ ñu dimbali ngir jëm rasulilaay te bañ na wax ay waxi douze milliards bañ na wax ni ay dañuy jënd ay tombak ay ay dañ koy séddale moodu moodu yi sonn yi nangam sangam mënuñu ko séddale mënuñu dimbali ñun nañu dimbali waxal ñu union européenne lancé appel union européenne ne ko na may ay doomam këyit suñu gouvernement li mu war a def moom loolu la war a mooy lancé appel union européenne ne ko dama bëgg nga may sénégalais yi këyit yaa ngi comprendre Italie tout récemment day may deux cent mille euh, euh, personnes kayit mais deux cent mille yi moom boo ko mooy immigré yëpp waxul sénégalais yi kese aussi deux cent comme ni Portugal def aussi mais heure bu ñu nee immigré day may kayit rek fii Sénégal dañuy yaakaar wax non non dañoo ne képp ku nekk immigré bi parce que du Sénégal rek mooy toog trois ans te du am kayit am na yeneen réew ay Russie bu ñu demee France wala Espagne ay immigré la ñu yeneen yeneen yeneen kon donc ñun li ñuy wax suñu gouvernement mooy mu signé ay convention yi nga xam ne ñun immigré yi dañ ciy gis suñu bopp bu ñu fe ah, bu ñu bu ñu deewee comme nii ku dee àll li la gouvernement mën a defal li mën a sedd sa xol mooy sa gouvernement jël sa corps yóbbul la ko say mbokk maanaam di wane ni yow héros nga da génnoon pour le Sénégal donc da ngaa xam nga ak euh, ni nga xam ne bëggee wuñ ko mais aussi di si am fierté si ni nga ñëwee noonu di xam ni ku ñam dund rek di nga ñam dee ñu xam ni loolu mooy dernier souffle bi ñu jàppale ñu si quoi yaakaar naa ne kàddu yi leer na te matali na ñu bàyyi la rek nga joxe say euh, kàddu yu mujj. waaw di nuyuwaat waa entrenou diaspora aussi di leen remercier si liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def saa su ne di wax aussi waa collectif euh, rapatriement des corps décédés sénégalais de l'extérieur bu groupe 1 bi groupe 2 bi aussi di nuyu ñi nga xam ne aussi ñoo nekk si telegram bi aussi te nekk ñu ci whatsapp bi ñu ngi leen di remercier di leen wax ni. nañu continuer combat bi te xam ni gagné nañu terrain ba pare parce que plus de trente pays xam nga si monde bi bokk nañu si bokk nañu si affaire diaspora bi xam nga bokk nañu si whatsapp bi bokk nañu si groupe bi donc euh, di remercier aussi waa Sénégal aussi si combat yi nga xam ne activistes yi ñu ngi koy mënee xam nga di remercier daal ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi jàpp si combat bi di am contentement aussi si ngeen tiimal ma seen micro aussi. ma leen ciy sant bu baax a baax di leen gërëm aussi di leen encourager aussi fi ngeen bëgg yegg rek yàlla na leen fa yàlla yeggal di wax ni Covid 19 bi nañ ci jaamu yàlla te bañ cay jaamu ay xërëm di ñaanal waa Sénégal yëpp di wax ni jaamu yàlla gën jaamu xërëm daal yàlla nañ yàlla defal tawféex dinañu ñu coronavirus bi di wax weeru kooru jàmm di sant ñëpp ñi nga xam ne rek ñu ngi may suivre aussi di sant sama mbokk internautes yi di leen jox euh, dig daje ba beneen yoon incha allah bi yéen it di leen euh, ñaanal daal di am cant goo xam ne am na fu mu tàmbale mais amul fu mu jeexee wax dëgg fa yàlla parce que euh, ñu am maanaam ñu am gis-gis ngeen parce que damay seetaan seen émission aussi si YouTube di seetaan seen interview yi ngeen di def mais aussi am solo ngeen di def macha allah donc euh, di wax ni continuer leen rek lépp dina baax incha allah rabbi jërëjëf jërëjëf.